que ma bëgg dire, c'est que 25 joueurs jours yu ma yu ma sélectionné yëpp ma mën leen utiliser euh, mën naa wax que contre euh, Madagascar il y dina am joueurs yu may utiliser dinaa utiliser tam des joueurs que mel euh, nu contre Mali mais contre Madagascar match officiel tamit même bu dee sax amul enjeu ñun bëgg nañ gagner parce que nous nous permettre ñu préparer kan buy ñëw donc euh, lu ma leen mën a wax ci loolu rek mooy que en tout cas dinañ am équipe bu compétitive équipe boo xam ne tey dina pare pour gagner match suba bi.